tey nag te loo wax rek am na loo bàyyi. wallaahi dëgg la dinañ fexe tey partagé ba kenn ku si nekk rek di nga ci gis sa bopp quoi. d' mhm. accord jërëjëf euh, monsieur Kane wax ji am na solo alors euh, Fakiné. Euh, man dama am dama am problème ak mot bi war. Mhm. Mm. bi ma nekkee xale ba léegi maa ngi koy dégg. Mhm. yàgg naa ko laajte nag. ñii xëy na dama ko laaj ñu déggul olof. Mm. parce explication yi may jox du coïncider ak li nga xam ne moo tax ñu naan diw dafa war mhm. parce que je trouve que war c'est un terme circonstanciel mhm. parce que boo ko woowee trahison dafa rëy mais dama gis nit ñi di defante yu bëri yu sew mhm. mais man su ma doon définir war li ci ëpp lu ko indi mooy ñàkk wax dëgg nit ñi dañuy fàtte ne ñaari nit suñu toogee di waxtaan li ñu wax ba tënk ko loolu contrat la. te contrat boobu li ko jox solo mooy li ñuy wute ak mala. xam nga mala bu toogee fii munoo xam mala bi lan lay xalaat ak lan la nar. nit buy signé contrat nit da ko war a nar waxuñu ne dina ko def de mais daf ko war a nar. ñu toog ñoom ñaar ba tënk yow nga jële li ngeen tënk nga dem génne ko wala nga def ci lu ci loo li nga xam ne d'accordul leen ci woon mhm. tant que ñàkk wax dëgg mi ngi am nit ñi di waxante génn nettali li ñu war li nga xam ne dañ ko waroon nëbb mhm. war du fi jóg mm. parce que respect de la parole donnée moo wute nit ak mala te ba àddunay tukki nit li ko wuteeg mala lenn dong muy le pouvoir de se taire léegi nag euh, man li nga xam ne moo ma gën a moo ma gën a jaaxal ci li nit ñi di faral di def mhm. mooy sa nawle ngeen waxante nga génne ko léegi nag man man daal loolu jaaxal na ma léegi nag léegi nag dafa am beneen affaire loolu loolu forme de war la. Mhm. non je te pose la question loolu forme de war la forme de war la. si si forme de war la parce que wax ak nit ba pare nga génn wax ko loolu forme da wax la war la. d'accord léegi nag comme war dafa bëri façon. Mhm. ñii nee nañ ci jigéen ak góor la. Mhm. mais nag man bi ma ci gën a jaaxal souvent. xam nga jigéen ak góor d'habitude suñu nekkee dafa fekk ba ñuy commencer relation dañoo bëggante woon. man nag lu ci ëpp damay dégg ñu koy woowee war mais pour man du war. parce que nit su ma bëggee tey te bëggatula suba sañ na choisir li ko gënal. bien sûr mais problème bi xam nga fan la nekk le le fekk mu bañ a ñëwaat ba ci nit ki. wax ko. sincérité. sincérité voilà le fait que nga bañ a sincère ñëw ne ko man maa bëggoon bëggatuma. Mhm. loolooy war bi c'est honnête. loolu du war c'est honnête. non dama li mu ne le fait que ñëwul mu wax ko ko. ah waaw loolooy war bi mais justement wax la ko il a été honnête ngay def semblant di kii loolooy war bi. te man loolu laay gis souvent en fait dans les relations humaines. léegi nit ki man d'accord naa bëgg naa la bëgg nga ma. mais bés boo ma bëggatulee da war a ñëw wax ma ko. mooy dëgg wala bés bu amee leneen lu la tënk. da nga a ñëw wax ma ko mais waroo décider. Mhm. te yëguma li nga décidé lan la. Mm-hmm. xam nga doute bi muy bàyyi ci sa bopp. mooy metti ba mën na la. merci loo sax confiance. merci sa bopp yow. tout à fait. Mm-hmm. boobu fekk na mu ngi ci beneen relation. et puis et puis <laughs> maa la ko wax boobu fekk na mu ngi ci beneen relation di fa di fa tukk sa bënn saañ ba réer. et puis man su ma koy a nga toog rek. tant nit ñaa ngi ger. Mm-hmm. war du jeex. corruption. parce que pour man soubassement war ger la. Mhm. nit ñi dañoo war di bëggante. Mhm. waxante dëgg. yéenante jàmm doylu doylu moo manqué. doylu ak respecté. respect de ak respecté. surtout respecté cest à nit soo demee koy def dara. Mhm. transposer ko sa bopp benn seconde rek. merci. tant que loolu defuñu ko dina continuer bu ñu waxante dëgg war du fi gëj ger tant que mi ngi fi war du fi gëj. macha allah jërëjëf Fatou Kiné wax ji am na solo alors euh, euh, Soukeyna Soukeyna